mercredi à 14h30 ah, dañuy daal di dem fekk benn góorgóorlu kat tey nag ñoo ngi fii nga xam ne muy Pikine ah, donc Pikine nag gëjoon naa fi mais dama fi daal di ñëwaat ki ma seet si nag c'est un jeune homme bi nga xam ne moom menuisier la mais ah, moom lépp lu concerné salon lay defar donc lay defar chambre à coucher et cetera mais Euh, li nga xam ne moom lañ ko gën a ràññeewee euh, muy salon ba tax na damay àndat rek ki nga xam ne euh, muy Cheikh Sadibou dinañ daal di xool ndax moom moom mooy defandoo lépp wala dafa daal di am ñi muy collaborer pour liggéey bi donc léegi-léegi rek Cheikh Sadibou danga may daal di accompagner ma dox ci biir ndànk parce que dafa mel ni maa ngi dégg ambiance bu neex a neex foofu donc Cheikh Sadibou bu baaxee rek danga may daal di accompagner ma jéggi ndànk tali bi daal di ko fekk moom fa mu nekk

voilà chers téléspectateurs de la 7TV gis ngeen tey ambiance bi nga xam ne moom laa fi fekk ñu daal di fecc lu am jom ah Amadou. waaw waaw waaw lu am jom. <laughs> mu nuyuwaale sama caméraman kenn du moom Cheikh Sadibou sama doom ji ah. moom daf maa bëgg ba des fois dañuy daje si ay couleur gis nga ne moom ver la sol ma sol vert. waaw waaw gis naa loolu gis naa loolu vert du vert et du vert. et du vert sur le vert en bas. Ah <laughs> alors nuyu naa la Amadou. maa ngi lay fay. ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo lay seetaan bu ko defee ñu daal di ñëw ci waxtaan bi. asalaamaaleykum wa ñu ngi nuyu téléspectateur euh, téléspectateur 7TV yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di la nuyu yow. vraiment di rafetlu sa entrée sa entrée dafa grandiose <laughs> dafa grandiose di nuyu ñëpp di nuyu waa Njurul Ameublement di nuyu waa Pikine Ridis di nuyu ñëpp. en tout cas ñun fay nañ la sama entrée c'est normal mu mel nii parce que li ma fi fekk la xam man moom dama bëgg ambiance <laughs> ah te gonay moom dañoo bëgg lu neex bëgg ambiance comme yéen donc ma ñëw fekk si waa Pikine donc euh, c'est normal alors euh, Amadou Camara ñu daal di ñëw gis ne yow da ngay defar ay salon ay salon kese ngay defar wala lan bëri na dañuy réaliser salon chambre euh, à rideau et décoration extra maanaam lépp loo xamante ne si décoration la rek maanaam ci wàllu kër dañ koy gérer waaw dañ koy gérer. alors vous avez besoin de quoi lan lan ngay soxla pour mën a defar rek li nga xam ne mooy décoration euh, de maison mais tey avant ñuy ñëw ci yeneen yi dañuy ñëw ci salon bi nga xam ne euh, moom lañ fi fekk donc euh, tey fekk ñu fi ay lal parce que bu ñu nee menuisier. d'habitude dañu fiy fekk ay lal ay yeneen ak yeneen mais tey danga nga xaw a mel ni lu coup spécial donc ay salon lañ fi fekk yéen lanal lanal lan ngay soxla exactement pour defar li nga xam ne mooy salon yi. waaw parce que ñun ameublement la ñuy def waaw ameublement la ñuy def wax parce que boo waxee ameublement wax euh, fauteuil wax chambre à coucher euh, wax salle à manger waaw ñun amuñu ci frontière mais nag comme pour l'instant ci nga domaine nu domaine nu fauteuil ci nga ñu fekk. mais domaine nu chambre à ñu koy réaliser mais day tombé ak yi nga xam ne chaque moment ak lii gën a ëpp day am moment boo xam ne boo ñëwee da nga euh, xam ne boo ñëwee da nga naan salon kese la ñuy defar c'est quoi. Euh, donc nga da nga spécial. Euh, moment bu nekk salon yi ngay exposé pourquoi nga choisir moment bi pour exposer li nga xam ne mooy salon yi. waaw parce que période bi dafa tombé ak màggal dafa tombé ak màggal te Magal Touba dafa nekk euh, sunu sunu sunu événement la ñun sunu événement la ñun parce que euh, bu gars yi di préparer seen euh, seen kër yi pour dalal gan yi maanaam dañuy fexe ñu defar ko aménager ko ba mu rafet loolu nag dañu ciy soxla ñun dañu ciy soxla te saali moom la ñuy gën a soxla que chambre à coucher yi comme que saal yi mooy priorité moo tax Magal saal yi dafay nekk sunu marché quoi. xanaa kon décembre bi moom lal yi ñooy xew parce que xale yëpp décembre la ñuy marié wu. bien sûr bien sûr surtout comme ni nga ko waxee. ah oui ah oui mariage si décembre yi kon genre Aïcha Dia bi nga xam ne le 10 décembre la marié. voilà mi ngi noonu waaw période bu nekk rek <laughs> ak ak li ngay réalisé ak wax nga dëgg noonu nga ko waxee noonu la amee lu jëm ci novembre jëm décembre maanaam sàmbar ak moom dafay bari ak lu jëm tabaski aussi. waaw lu jëm tabaski parce que souvent euh, gars yi seen seen mariage yi léeg après tabaski bu bu bu bu tabaski bi jege jegesee souvent ay mariés yu bëri da si am parce que après événement bi ay sëy yu bëri day am man daal ci ni ma koo miinee maanaam bëri na ñoo xam ne ñu ngi may laaj seen chambre à coucher période tabaski. yow yow ban période ngay takk jabar am nga jabar wala amoo ko. am naa jabar bu yàgg <laughs> waaw yow ban période nga ko takk. période tabaski wala décembre wala nu mu demee noonu. parce que décembre bi day sedd <laughs> décembre bi lu tax nit man loolu yow. waaw période août waaw. noo noo nawet noonu nit ñi di fay di ñëw ci sa xew ni mu bëri ndox lool. xëy na foofu la ko yàlla dogalee. <laughs> Ah, donc mi donc léegi nga def euh, nga nga fêté encore sa anniversaire de mariage. passé na passé na passé na passé na passé na. <laughs> moom rek laay topp alors ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne aussi mooy euh, thème mu tay bi di menuisier alors d'habitude euh, menuisier yi dañuy def collaboration ak ñeneen ñi c'est-à-dire comme ku ci mel nii Euh, tapis tapissier yow est-ce que yow yaay euh, def tapissier bi yow en même temps tapissier nga euh, yow yaay ñaw affaire yow yaay defar lépp wala da nga am collaborateur. waaw man yàlla dafa def ma am sens boo xam ne damaa am formation benn formation bu global parce que sama turandoo moo ma jàngal métier ñi ngi nekk sama sama turandoo la sama rakk papa la en même temps moom marine française la ne newoon ci domaine menuiserie nekk fa ingénieur menuiserie bu mag biir marine française waaw mu yoroon benn atelier nag fii buntu Pikine boo xam ne amoon soudeur métallique amoon menuiserie moom moo nekk moom amoon tapisserie en même temps waaw ñun bi ñuy jàngi métier ci couloir boobu lañ ko jàngee moo tax euh, détail yëpp dañ ko am en global quoi dañ ko am en global. def en pierre 10 euh, mille coups ah. très bien très bien c'est ça. c'est important donc loolu c'est en plus parce que le fait que nga war a jël tapissier bi ak ñeneen ñi def collabora des collaborateur après nga leen di fay xaalis ba mën na xaj si yow. mën na xaj feneen waaw parce tamit nit ki loo maîtriser wul mënoo cee nekk am na ñoo xam ne xaalis moo leen dugal ci meuble am na ñoo xam ne seen fond la ñu yor dugg ci meuble bokkut ak ki nga xam ne maanaam dafa am expérience bi ba pare am fond ñu loolu moo ñu dal ñun jàng nañ expérience bi ba pare xam ne fond la ñu soxla ñu dem wuti fond di produire di teg parce que focaliser wuñ ci commande. Euh, focaliser wuñ ci commande dañuy réaliser ak suñu propre moyen dañuy toog étudier xalaat li ñu war a def jàpp ne lii ak lii bu ñu ko defee dina rafet ñu jël suñu propre moyen dem wut matière première bi euh, réaliser ko ñëw teg. mais des fois nit ñi dañuy ragal li nga xam ne mooy euh, di def ay exposition donc parce que des fois nga exposé mu yàgg lool ci sa atelier par rapport ak commande kenn bu ñëwee jënd benn commande ne la commande bii moo neex. nga defaral ko mu jënd ko dem yoram est-ce que loolu des fois du risque du risque nga daal di defar ba mu rafet exposé ko après mu bañ a jar parce que des fois comme exemple mën nga def euh, jënd bu noir bii nii euh, doore bi du la ci neex leneen moo la ciy neex beneen couleur. waaw parce que man loolu daluma parce que man yàlla dafa def 2011 euh, laa door liggéey bi laa ko door quoi pour bëgg a demal sama bopp à part bi ma jàngee métier ba léegi mais diggante 2011 ak léegi maanaam man at bu ñëw rek dinaa fexe. ba réaliser lu bees damay ànd ak modernité quoi du ma nekk di defar yu daaw ak yu ren maanaam man chaque moment rek maa ngi def innovation di ànd lu bees moo tax loolu pour exposition mu yàgg vraiment yàlla musal na ma si waaw man yàlla musal na ma si loolu man avant may pare sax day fekk day fekk jar na waaw day fekk jar na waaw. Ah, donc ça vous arrive des fois de faire des des propositions wala euh, la lii laa bëgg loolu nga koy defar est-ce que des fois doo ko laaj euh, ndax sa salon nan la mel. Euh, euh, ban thème nga bëgg proposer ko exactement li mu li war a dem ci salon bi. parce que euh, type de client yi ñoo dul bokk ku ci nekk ak sa sa sa programme parce que souvent da ngay am ay clients yoo xam ne dañuy am seen seen seen choix parce que tubaab nee na moo le choix et les goûts on se discute pas voilà ok léegi bu fekkee yow am nga sa choix ne lii nga bëgg def ñun dañ lay ci loolu. mais nag am na koo xam ne bu ñëwee comme mel ni yow xam nga da baax da ngay ñëw ne ah Camara xoolal ma loo xamante ne si dina compatible ak euh, sama appartement mu rafet affaire yooyu bu boobaa ñun ñu ñu ñu ñu ñu def ko ak suñu propre xalaat te bu boobaa day compatible ak euh, sa bëgg-bëgg waaw mais nag ki ñëw ak suwaawam ne lii laa bëgg dañ ko respecté loolu réaliser leen ko loolu. Hmm. Euh, ban ñun ñëw nañ fekk fee ay matières yi nga xam ne ñoo xaw a donc yow ban exactement ban matière ngay gën a defar si li nga xam ne mooy sa salon. waa samay salon mi ngi réaliser bois euh, éponge ak tissu ak finition loolu mooy fauteuil quoi bois tissu finition ñun loolu la ñuy soxla comme matière première bu dee domaine chambre euh, à actuellement bu njëkkoon gars yi dañ doon def euh, ay ay bois dur soit bois dibutu bois fraqué comprendre nga waaw bois seen lenke genre yooyu la gars yi doon defaree chambre à coucher mais à l'heure actuelle tapisserie bi dafa xaw a dominer ci ci ci ci chambres à yi parce que léegi chambres à coucher yi moderne yi am moment bii nii nii ay ay capitonnage la ay capitonnage la day am cinquante menuiseries cinquante tapisseries comprendre nga moo tax ci moment yii nii au lieu que ñuy soxla bois yi daan am dañuy soxla ay contre lamine laminé wala souvent ñu jël fraqué changer couleur bi comprendre nga voilà loolu loolu la ñuy def mais euh, moment yi moom euh, bois bois dur ci lal dafa xaw a. xewi daal xaw a xewi quoi. waaw xaw a xam ne parce que léeg xam nga tey boo ci boo ci yoree soxna su mel ni Khady Ndiaye boo ci yoree soxna su mel ni Khady Ndiaye defar bopp Ndiaye ak ñoo bëri ci lal boo xam ne defar bopp lal boo xam ne maanaam lépp bois la léeg-léeg xam nga Khady Ndiaye daa bëgg bëri nga bëri ba si yàgg rek daa di daa di dal ci bopp bi sa bopp day toj da ngay gaañu waaw mais bu dee lal yi am léegi bon da ngay bëri Khady Ndiaye ba dal ci ci éponge ngay dal doo gaañu waaw gis ga <laughs> li ma si métti mooy. Euh. Khady Ndiaye Sénégal ba mu daj ñëpp Khady Khady lañ tudd sant Ndiaye. dañoo miir ma koy nuyuwaale au passage. la sa jabar Khady Ndiaye Dija Newzet. Eh. waaw maa ngi koy bëggee. siyaar Khady Ndiaye Dija Newzet. waaw Dija Newzet c'est le meilleur c'est le le meilleur. mooy madame ah jigéen xam nañ ko au niveau d'internet waaw. xam <laughs> nga monsieur dafay defar salon madame di jaar ay nuisette waaye yow boobu kër tamit. en ah, asia yu doy waar yu doy waar yoo xam ne mosoo koo gis. dina yow yow mosul gis. moo moo yor xale jigéen moo leen yor. jamono gi est-ce que jigéen dina la mën a tee jommal. waa non non nag waaw non non wax dëgg yàlla ah. fi mu nekk nii moom maanaam damaa damaa droite sama caabi réer damaa droite sama caabi daal réer te code la te caabi ji code la. <laughs> barki yàlla man kii laa bëgg man <laughs> donc mi ngi noonu alors li nga xam ne mooy euh, salon yi ça te prend combien de temps pour nga defar ko. waaye ñun nag ak équipe bi fi nekk. maanaam salon lu mu compliqué compliqué dañ koy réaliser ci une semaine. une semaine dañ ci une semaine lu modèle bi compliqué dañ koy réaliser ci une semaine parce que bon am nañ équipe bi quoi am nañ équipe bi te fii c'est la famille waaw njurul ameublement c'est la famille. c'est la waaw c'est la famille. maanaam am na fi samay frères yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay am na fi samay doomu bàjjan ah am na fi samay samay jarbaat ah am na fi samay doomu ndiyaay di leen waale ñoom ñëpp équipe bi yëpp di leen nuyuwaale. Euh, commençant par euh, Moustapha Samsi Fallou Omar Iboulaye Thierno Lamine ah Zil Souleymane Mo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp su ma lemee damay jóg équipe bu njurul am mobilement ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di nuyu dileen leen siyaar di leen parce que ñu ngi góorgóorlu ay xale yu yu yu am joom la macha allah loolu c'est important ba tax na euh, aussi d'habitude euh, menuisier dañuy am problème souvent avec li nga xam ne mooy seen client donc euh, euh, ñu bari jaar nañ jaar nañ si ku xamul ku si jaar dund nga si dund nga ko des fois ñu jox la rendez-vous ñu faussé rendez-vous boobu est-ce que ça t'arrive des fois parce que tey boo nee euh, moins d'une semaine wala à une semaine nga pare sa say mbir donc ñëpp dañ lay ñëw engagé si est-ce que mës nga am problème jox rendez-vous kenn après nga faussé rendez-vous boobu. waaw parce que gis nga métier n'importe quel métier daf lay fekk ci sa personnalité métier bu mu mënti doon. daf lay fekk si sa personnalité man souvent ma dégg loolu ouvrier yi ouvrier yi ouvrier yi man bon loolu concentré wu ma ci quoi parce que man euh, ci sama jikko ak sama personnalité moom laa respecte ci laa engagé wu parce que aussi euh, kaddu dafa am solo maanaam ay kayit bind yi mën na effacé wala mën na mais kaddu c'est très important fi muy jógee ci nit nit ki mooy xam moom ban façon nit la mu xalaat ko génn ko ci làmmañam xam ne moom lii la waxoon pour mën a honorer engagement yooyu nga xam ne moom moom la jël man aw ma problème yooyu parce que léeg sax euh, tey ci seen i avance wala ci seen i liggéey man je préfère réaliser ak sama propre moyen ba mu àgg ma woo na la kaay jël si ko waaw man aw ma problème yooyu aw ma problème yooyu maanaam problème mu délai ak temps amuma ko amuma ko problème client bi même euh, lu jëm ci événement tabaski wala événement màggal gii ñu nekk nii nga xam ne fi mu nekk nii Touba ma nga a def yu bëree bëri bëri te incha allahu rabi ñëpp dinañ jot seen i ñëpp dinañ jot seen fauteuil parce que àdduna du métier bi kese mais wax loo mën la rek waaw n'importe quel domaine na wax loo mën ko waaw. boo tëddee nelaw am na woykat bu ko woyoon. def loo mën wax loo mën boo tëddee da ngay daal di nelaw ba tax na euh, dégg naa nga ne tuubaa danga nga fay daal di def ay livraison mm. donc euh, alors si je comprends bien du dakaar rek nga limité wu du Pikine rek nga limité mais dangay dem fu ne di yóbbu fu ne livraison. bien sûr ñun dañuy réaliser lu jëm Guinée-Bissau dañuy réaliser frontière waaw dañuy réaliser lu dem Mali dañuy réaliser lu jëm Gambie comprendre nga dañuy réaliser Mali Guinée Bissau Gambie dañuy réaliser lu fa dem. après si conteneur bi lay aw. waaw dafa am nag ay samay correspondant yu jigéen maa ngi leen di waale nuyuwaale ku ci mel ni madame Samb ah ak madame Ndiaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax parce que ñoom ay ay ay sénégalais lañu mais ñu nekk ay nit ñu am jom ñoo xam ne dañoo yor foofu seen i boutique maanaam maanaam maanaam di fa di fa jaay li nga xam ne mooy meuble. bu ñëwee dañ may commandé dañ may commandé bu ko defee ma am ay prix yu ma leen defal comme ça pour seen dédouanement mën a mën a mën a jaar yoon mën a jaar yoon bu dee madame Samb moom day dem ba euh, fii euh, Ziguinchor lay yemale bagage yi après Bissau Guinée ñoo koy jël si waaw am na ñoo xam ne transport camion yi dem Mali ci lañ koy dugal am nañ seen i daal ñoom am nañ seeni i secret nu ñuy def ba mën a livrer ba mën a livrer seen bagage ah. si je comprends bien yow daal da daal di liggéey ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaay donc yow yaay en gros da ngay ah, jaay détail donc mi ngi noonu. bien sûr bien sûr bien sûr am ñoo xam ne man maa leen di fournir salon bu pare ay photos yu pare man maa leen koy fournir am ñoo xam ne nag ñoo may fournir matière première maa leen nuyu ku si mel ni Mame Thierno borom daaru ah mi ngi Pikine ku ci mel ni Ibou Ndiaye mi ngi Pikine Paku Lambaye moo may jox bant ah ku ci mel ni Abdou salaam moo may jox yenn accessoires yi su fekkee ne commandé wu ma Turquie wala ma am lu yàqamti damay dem ci Abdou Salam mu jox ma. si je comprends bien travail ngay def am nga ñeneen ak ñeneen. waaw waaw waaw parce que parce que parce que dans le de cadre maanaam amul limite. parce que am na loo xam ne benn nit kese mënu ko def mënu ko def ñun focaliser wuñu ci bon nekk à bas dañoo yegg yàgg am idée boobu maanaam nekk ñu benn ouvrier boo xam ne bon day liggéey ñii ñu fay ko après mu màgget dem yoonam. dañoo am ay référence comprendre nga am ñu ñu ciblé am ñu ñu ciblé parce que fii ñurul ameublement lañ ko tuddee waa kër Serigne Saliou fee ñuy réaliser ñu tuddee ko xel xelkom boo demee ñu ngi fay sàmm ñu ngi fay sàmm ay nag ak ay bëy dinaa dem won la ko comme ça la bëy bu ndaw <laughs> voilà waaw foofu la ñu tuddee xelkom tuddee fii njurul ci lépp rek day delluwaat ci référence bi mooy Serigne Saliou Mbacké mooy suñu référence maanaam liggéey jàng ak jàngale moom la ñu xam ci Serigne Saliou di nuyu waale Euh, Serigne Cheikh Saliou moom Serigne Saliou Mbacke Daaru Xuddoos di nuyu soxnaam su tedd soosu. bàyyi ba ngay tëj nga doog di nuyoo. voilà voilà donc aussi bëgg naa xam fauteuil bu nekk euh, ñaata place say def donc waaw salon am na yoo xam ne dimension la am na yoo xam ne dañuy xool maanaam périmètre bi nga xamante ne si moo nekk ci salon bi ñu jël ko bu fekkente ne 14 place la quinze la 17 20 ñu réaliser ko comprendre bu fekkee nag dispersé la. si si moment yi nga xam ne ñun moom la ñu xamee salon Sénégal fii mooy trois place deux place ñaari individuel mooy sept bu fekkee Europe ñoom ñooy def trois places deux place benn fauteuil mais ñun salon Sénégal li ñu xam mooy trois places deux places ñaari fauteuil mais nag ça a rien à ak ki nga xam ne dafa am salon war a jël dimension pour mën ko occuper parce que bon ni gars yi tabaxee seen plan yi nduroowul am na ñoo xam ne seen biir kër dañ fay mën a am salle bu mag. boo xam ne dañuy mën a recevoir nombre daggan yi ñu soxla waaw mais ci salon daal maanaam ci limitam sept places la moom lañ xam quoi waaw. donc loolu ça va te coûter combien comme par exemple euh, say prix bi si gën a moins cher ñaata la j'espère que cheroo. waaw waaw waaw cheru ma du ma ne seer naa du ma ne seeru ma <laughs> ma toppandoo président Macky Sall nee na du ma ne waaw du ma ne déet <laughs> waaw waaw président de tous les Sénégalais président tous les Sénégalais. gis nga ci côté boobu maanaam dañuy xool. li nga xam ne maanaam euh, moom la moom la ku ci nekk parce que tamit euh, dañuy góor góorlu pour satisfaire client yëpp parce que nag bon euh, mën-mën yi tolloowul mën-mën yi tolloowul mais daal pour tudd ay prix pour tudd ay prix xam nañu daal képp ku ñëw képp ku ñëw dinañ la mën a satisfaire lu compatible ak sa poste parce que doo yemul waaw parce que tey su ma la waxee yenn salon yi may réaliser maanaam am na ñoo xam ne dañuy ragal du ñu ñëw te fii daaree njurul la <laughs> daaree njurul la dama bëgg ñëpp gis seen bopp. <laughs> loolu c'est parce que doole yemul et que ku ñëw war na mën a gis boppam. donc voilà euh, yow bëgg naa xam modèle yi nga xam ne des fois moom ngay jël di créer fan nga koy jëlee si internet bi wala da ngay toog xalaat di ko créer. noonu non man ma laal internet parce que instant bi bien vrai que internet bi am na ubbeeku am na modèle am na commencement yooyu yëpp dëgg la. te aussi avant internet bi di am aussi gars yaa ngeen doon defar ay catalogue di ko jaay mais man yàlla def na mosuma liggéey si loolu man damay toog rek bon waaw xalaat xam ne lii war naa mën a ne ma dem réaliser ko. cerveau ngay liggéey waaw waaw waaw su ko réaliser xam ne mën naa ne ma def ko mu rafet aussi euh, nit ñi nit ñi apprécier ko. waaw donc yi ngi yi fi nekk yëpp da nga koo réaliser ak sa. waaw sama propre réalisation parce que man yàlla def na nekk naa kuy liggéey meuble koo xam ne. mën naa ni daal te sant naa ñëpp nag surtout Pikine bi yëpp maa leen sant parce que nangul nañ ma loolu nangul nañ ma loolu man yàlla def na mën naa réaliser loo xamante ne si boo ñëwee si man rek nga koy gis mën nga wër Sénégal wërngal këpp doo ko gis loolu yàlla defal na ma ko ma ci sant yàlla bu baax a baax waaw ma ci sant yàlla bu baax a baax euh, euh, dañu gis ne genre fa yi dañu xew yi ñu toog ne donc yi moom nan lañ koy woowee lii club lañ koy woowee waaw lépp lu ndaw rek ci ci meuble club lañ koy woowee yu mag yu mag yi donc en tout cas yi dañ koy faral di gis surtout ñi nga xam ne dañu am boutique dañuy faral di gis ne décoration de de, de boutique la wala ah, boo sa entrée maison donc bu nekkee da nga am entrée salon euh, ñu daal di ko teg mu daal di nekk lu rafet lu lu également aussi euh, bëggoon naa xam yow sa garantie dina dem ba ñaata temps meuble waaw parce que loolu ku ñu koy laaj maanaam euh, mën nañ la wax sunu meuble mun nañ ko garantir ba de 4 ans à 5 ans mën nañ la wax loolu mais nag euh, li nga xam ne moom la bët tege parce que fond ak forme du benn maanaam am na loo xam ne fond la am na loo xam ne forme la tey ñun sunu li nga xam ne réaliser nañ ko livré ko maanaam day dem ba benn temps képp ku ñu woo ne ah Amadou ñun de problème bi ñu am dañu naan la ñun de tissu bi neexatuñu comme que yàgg na fi dañoo bëgg a changer couleur waaw mais duñ ma wax ne lii wàcc na wala fii def na ne wala fii def na naa léegi man ci ñoom laay mën a basé pour mën a am temps bi sama liggéey mën a def. puis entretien sax dafa daal di am comme ni ñuy defee entretien ci suñu yaram suñu karaw suñu suñu suñu lépp suñu maison donc euh, mbir moom tey euh, lu lu mu lu mu nekk qualité qualité qualité nga bañ ko entretenir di si tëbëg di si lii dafay yàqu donc euh, kër gi nga xam kër célibataire la mm. wala jeune marié yu amagul doom ak kër gi nga xam kër famille la du doon benn voilà du doon benn loolu tamit am nañ ci am nañ ci waar wu rëy bu ñuy bay parce que am na yenn xeet Euh, yenn xeetu tissu comme soit velours LC den glacé yenn yi am na xam ne yow boo ñëwee bëgg ko fekk danga njaboot duñ la ko proposé duñ la ko proposé dañuy xool lépp loo xam ne dina dina dina compatible ak yow ni ngay yoree matériel bi ñun tamit ñu conseillé ci lool parce que mooy tax après boo jëlee liggéey bi doo buñ la ko livré yow doo sonn ñun duñ sonn parce que dinañ la wax yow li nga méngool li nga xam ne moom mooy mën a nekk ci yow doo topp buté bi parce que gars yi dañuy topp lii rafet na na fekk ñoom ci salle bi ñu nekk wala seen kër ci ci ci ci moment bi ni mu bindoo maanaam duñ ko mën a gérer kon dañ lay proposer ay simicure noir couleur noire wala el LC couleur noire nga xam ne yooyu mën naa ñeme na résistance mais beauté bi moo fa nekkul trop trop trop trop voilà voilà voilà voilà c'est ça. daal man bëgguma ko te Asia dafa mel ni tam nee na ko donc moom aussi maa ngi koy def en gros coucou donc voilà ñu daal di ñëw aussi ci euh, li nga xam ne mooy euh, sénégalais yi euh, nga xam dañuy liggéey. d'habitude tout le temps dañu naan euh, amoo leen finition donc par rapport ak bi nga xam ne dañ koo daal di importer tey boo duggee ci néegu jàmbur wala salon jàmbur nga gis euh, euh, menuisier bi bi mu defar ak bi nga xam ne sénégalais moo ko defar ak bi nga xam ne dañ ko importé da ngay gis ne carrément am na différence bu bari pourquoi souvent ñu naan leen si ñenn ñi nag amuñu finition. waaw parce que man moom mooy ku nekk li la a jóg rek man moom damaa mës a lutter contre l'importation waaw man dama mës a xeex loolu. léegi nag euh, bon le matière lutte bi maanaam maanaam système combat bi mooy yow doo ne bëggoo importer ci réew mi ba pare vraiment munoo livrer gars yi lu sedd seen xol léegi man ma am ci combat combat bi ma ci mooy dinaa fexe gis nga samay fauteuil yow gis nga samay fauteuil dinaa fexe ba réaliser loo xam ne dinaa fexe ba réaliser loo xam ne dina soo ko gisee yow dina lay impressionné di ko bëgg comprendre nga te aussi du am yenn volume. du am yenn volume yoo xam ne daf lay encombré parce que meuble dafa am aussi bagage am am na loo xam ne bon vraiment bagage la quoi bagage ak meuble du benn meuble dafa nekk loo xam ne maanaam danga koy teg mu lay gën a wétali parce que tamit bon la beauté des yeux c'est très important moo tax ñun dañoo gën a concentré wu ci loolu gën a góor góorgóorlu aussi ci sunuy finition li tax nag yàlla def xëy na ñu am sensu mun a am finition bu baax ñun xam nga tey ñun du ñu te ñu bëri li leen daaneel ci wàllu finition maanaam copier la parce que li nga copier xamoo yoon bi li nga copier xamoo yoon bi maanaam noo def nga faussé ñun nag li ñu ñun li ñuy réaliser maanaam ñoo ko créer ba xam lu nekk ak fi mu war a nekk moo tax dañuy am finition yi en norme waaw affaire finition moom jooy ñu ko vraiment. Hmm. mais yow lan ngay conseiller sa mbokk yi nga xam ne ñoom tamit ay menuisier lañ di defar salon ak chambre euh, à coucher donc ñoom ñi nga xam ne amuñu finition. parce que chaque règle a des exceptions peut-être yow exception nga ci mbir bi mais am na ñenn ñi nga xam ne tout le temps boo xoolee euh, li sénégalais di jooy si ñoom mooy ñàkk finition wala di tardeel li nga xam ne mooy commande wala nag euh, nga jox leen sa xaalis ñu daal di ko lekk duñ la defaral donc yow en tant que menuisier bi nga xam ne gëm nga li nga bëgg li ngay def bëgg nga ko et que da nga koy jaamu ban conseil nga leen di conseil waaw waaw waaw ndeysaan xam nga am na ne tolluwaay la parce que nag mi ni nekk maanaam bëgg nga honorer say engagement pour man pour man ñi ku si nekk loo wax nit rek pour man war nga ko def mais dama leen di conseiller pour ñu gën a góor góorlu ci wàllu wàllu fond daal man daal wax dëgg yàlla damaa ragal damaa lagal yàlla yàlla dimbali ñëpp mais man damaa ragal ku ne meuble lay liggéey soit domaine menuiserie wala domaine tapisserie la nga nekk ci maanaam te amoo fon quoi te amoo fond de roulement. donc fond bi mooy gën a faral. moo lay sécuriser parce que bu fekkente ne yow da yor say machine ah yor sa place rek maanaam di xaar yow mu nga ñëw jox ma avance pour ma réaliser ak sa xaalis jël sama bénéfice livré la mais mun nga ma jox sa avance euh, soxla dab ma mais damay lekk sa xaalis comprendre nga dafa am benn fonds de sécurité boo xam ne yow moo lay moo lay moo lay garanti man attention de man client man client bi soo woowee ñaari appel sax sa sa sa sa waxtaan xawoon na xare dama lay yéen rek des fois waaw parce que fexe naa ba sécuriser sama bopp parce que Sénégal vraiment dañoo nekk ci ay jikko yoo xam ne souvent léeg-léeg bon nit ki bu la joxee xaalis rek day mel ni comme fit daal. moom sax. waaw man loolu suñu jikko waaw man loolu dama koy bañ. moo tax léeg sax soo ma nee ñaata laa lay jox avance ma ne la bon bu la neexee ñu réaliser quoi ñëw andi la nga def arrivé ñu livrer la nga fay parce que xaalis fonds de roulement moo lay sécuriser. nga bañ a xaar client bi mu ñëw client bi nekk complément recette client bi ak yow sa fond de mën a daje nga xam ne yow engagement boo joxee da ko honoré xëy na nag loolu bon xëy na nekkul ne danga koy bëgg rek am ko mais maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla defal ñëpp euh, Sénégal jeunes yi ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu maanaam am nañu jom nangu nañ liggéey am nañ talent comprendre nga man daal maa ngi ñaan ñu góor góorlu maanaam di leen ñaanal yàlla jàppale leen ko. c'est important donc comme conseil et puis dafa am importance xam naa moom boo demee ci compte bancaire ay milliards lañ ca macha allah <laughs> donc fonds il faut ngeen am ko pour mu mun leen accompagner donc euh, dernière question bi nga xam ne dernière question bi nga xam ne moom lañ lay laaj avant ñuy dem ci liggéey bi euh, mooy euh, tey ci un mois di nga ci réaliser ñaata salon wala ñaata chambre jamono gi salon yi ñoo nekk. Euh, à la mode donc euh, si si un mois di nga ciy réaliser ñaata chambre ñaata salon du moins. waaw parce que bu fekkente ne euh, maanaam ci un mois bi maanaam quatre semaines la quatre semaine te waxoon naa la salon n'importe quel salon dañ koy réaliser ci une semaine kon chaque mois dinañ génne carte dinañ génne carte bu fekkente ne nekkuñu ci événement nekkuñu ci dara dinañ génne carte quoi dinañ génne carte. mais nag bu ñu nekkee ci ay programme décembre wala ñu nekk ci programme mu màggal comme nii wala ñu nekk ci programme mu tabaski dañuy mën di réaliser sept par mois huit par mois parce que boobaa effectif bi dañuy yokk heure bi quoi dañuy yokku heure bi yokku yokk yokku rigueur bi parce que nag ñun maanaam maîtriser na euh, suñu terrain de telle sorte que maanaam dafa mel ni moteur rek dafa mel ni moteur automatique ñun ñooy accélérer bon ñoo ñooy bëgg suñu tableau de bord lu luñ ci soxla rek loolu lañ ciy fekk su mu cent cent cent la ñuy am su mu bëggee am cent vingt waaw loolu ça va ça demande beaucoup de beaucoup de beaucoup d'efforts xam na laa ko mën a expliquer parce que tey bu nekkee un mois bi ça fait quatre semaines léegi yow euh, chaque mois benn semaine semaine bi euh, di nga si defar benn salon léegi boo leen defee plus est-ce que matière bi ni mu war a baaxee ni mu war a nekkee euh, qualité dina ko nekkee noonu comme. voilà léegi xam nga comme su ma koy réaliser une semaine su fekkee ne par une semaine laa koy réaliser day fekk moment boobu ñu ngi ñu ngi bu boobaa ñun ñëpp dans l' ensemble dañuy ñii dañuy jël ñii dañuy jël section bras ñii jël dossier ñii jël caisse ñu jël fonds ñii jël ñii jël ñii jël soog. te loolu yëpp da see am. waaw yooyu yëpp am. après nga détaillé. waaw maanaam euh, ñun ñëpp ku ci nekk day focaliser wu ci benn pièce parce que lu ñuy rassembler après dañuy daje quoi léegi boobaa ñun ñëpp dañuy nekk ci benn salon bi. bu fekkente ne accéléré wuñu ñun ñëpp ci benn salon lañ nekk bu fekkee dañuy accéléré dañ koy xaaj en deux groupes en deux groupes groupe B seen sept groupe bi seen sept places noonu lañ koy. important donc Cheikh euh, comme ni ñu koy defee saa su ne euh, dañuy daal di dem xool li nga xam ne mooy liggéey bi euh, xool également exposition yi donc bi ñuy ñëw gis nañ carrément salon yi nu ñu mel gis nañ ci entrée bi salon yi gis nañ ci intérieur bi salon yi mais aussi am na feneen fi nga xam ne foofu lay defaree li ñuy li nga xam ne mooy salon bi léegi léegi rek ñu daal di dem foofu ñëwaat. chers téléspectateurs de la 7TV comme gis ngeen nag euh, jugee nañ fee ca Xelkom ba waaw Xelkom ba gis ngeen euh, vraiment boo leen fa duggee rek di ngeen xam ne carrément Xelkom ngeen di dellu ndax melokaanu xel Xelkom ba moo fa nekk euh, donc yow lan nga ñu mën a wax ci bërëb bi nga xam ne fa lañ jug waaw foofu nag foofu moom vraiment sama affaire la quoi sama domaine la waaw foofu laay gën a nekk en l'aise gis nga ni mu demee noonu jur gi ah yi di liggéey à côté ak ni mu bindoo ah tur borom foofu xel kom laa ko tuddee parce que man li ma am yëpp Serigne Saliou Mbacke laa ko jox comprendre nga léegi fii mooy njurul fee mooy xel kom comme dañuy bëgg chaque jour xale yi wax ne waa Amadou euh, bëy nag yi nangam nangam man leen non na tur wuy borom rek bu nekkee waaw waaw parce que boo duggee ci xel kom ba fekk nga fa bëy fekk nga fa nag fekk nga fa ginaar fekk nga fa yeneen jur yi nga xam ne ñoo ngi fa donc euh, lu tax nga choisir euh, fi jur yi nekk nga fay defaree en même temps waaw parce que jur yi moo ko fa jiitu woon jur moo ko fa jiitu woon quoi parce que ñun dañoo nekk ku bëggoon ku bëgg wàllu élevage parce que dañ cee juddu fekk suñu papa nekk ci élevage béy nag xam nga li ma wax affaire noonu amour bi topp ñu nag ñu doon am par benn ñaar par benn ak ñaar soo xoolee sax au commencement liggéey bay dem ba nga xam ne il faut que ñu ñu ñu ñu ñu décentraliser ko mais foofu maanaam sàmm gi kese moo ko moo ko moo ko taxoon a jóg waaw foofu daal mooy xelkom foofu moom soo fa yeggee maanaam ak waar wi pëccëxoo bi waaw damay nekk en l'aise quoi. waaw fa duggee da ngaa changé ñàkk tooy xepp donc en plus liggéey bi nga xam ne jot nañ ko fa liggéey lan nga ñu mën a expliquer si liggéey boobu noonu. loolu ñuy réaliser euh, salon Louis XIV la ah euh, Rambouré sept places mooy ànd ak ñaari chaise royale yi liñ doon daaj man a yow moo nekk nii waaw moo nekk nii man a yow. moo nekk nii ànd doom daaj bu paree nii lay mel. bu paree nii lay mel mooy forme bu rond bee kaw. moom lañ doon defar moom lañ doon defar man ak yow moom lañ doon defar man ak yow instant yi moom la ñuy war a moom la ñuy réaliser ni pour génn mën koo livrer fii ak 19 heures waaw donc fii ak 19 heures loolu noon mën na pare. maroon boobu waaye dina pare fii ak 19 heures incha allahu alors dagg nañu daaj nañu euh, euh, def nañu ay euh, aggra voilà merci beaucoup léegi loolu yëpp lan la ndax man xaw ma woon ne carrément aggrave yooyu noonu da ci doon nekk parce que aggrave d'habitude si cahier laa ko doon gis wala si papier donc voilà aggrave yooyu ça sert waaw parce que métier bi moo développé léegi quoi métier bi moo avancé parce que bu njëkkoon à l'époque tapissier yu njëkk ya ay pont yu sew amoon na pont yu sew ñu doon wax pont semence moom la ñuy jël ak marteau di daaj di daaj di daaj parce que tissu moo nekk loo xam maanaam il faut que li koy téye mu nekk lu large warta nekk benn point moo tax ñoom dañ daan xaw a yàgg dañ daan xaw a yàgg ci liggéey bi quoi moo tax bi mu demee ba modernité am bon affaire bi avancé vraiment nag ñu léegi ay outils yu professionnel am yoo xamante ne si dafa pratique te aussi tamit day gën a gaawal day gën a gaawal sa liggéey. d'accord alors gis naa ne fii tuddee nga ko njurul njurul njurul fële nga tuddee ko xel xelkom lan mooy sa relation ak Serigne saaliw waaw waaw sama relation ak Serigne Saliou. vraiment relation bu yàgg la bu yàgg la bu yàgg la waaw boo xamante ne si mën nañ ci expliquer lu bare bare bare bare mais kenn fi guddu bu baaxul la <laughs> waaw mën nañ ci expliquer ne da nga ko bëgg à chaque fois booy wax surtout boo ñëwee si xelkom bi. Euh, waaw parce que aussi euh, man judduma ci mouridisme judduma ci mouridisme euh, sam papa yàlla na ko yàlla yërëm taalibe cheikh la woon bon yor doon mu xadam yor yor yor kurus yor kurus salaatul fatiha. comprendre nga waaw ma ma ma ci sama murit ma souffrir ci benn moment nag mel na benn moment boo xam ne ba vraiment comprendre na ma quoi comprendre na ma parce que à l'époque bi ñuy euh, nekk école di jàng euh, dafa am sunu benn waay joo xam ne ci koñ bi la dëkkoon ñu koy wax jëwriñ seex léegi jëwriñ seex euh, bu fekkente ne jàngi ma dem ma fenn ci kër ga laay dem quoi mais su ma fay dem damay làqatu léegi kër gi dafa jàkkaarloogul ak sunu kër mais tali bi moo ko séparé léegi bu bu bu bu oto di romb rek damay làng ak oto bi daw comme li oto bi di daw bu tool ak buntu kër sëñ bi rek ma daw dugg waa léegi nag ñu ma fay tere kafe Touba yi nangam nangam affaire yu demee noonu boo ma souffrance ma souffrir ci sam papa bon euh, vraiment euh, état d'esprit bu bu bu bu bu kawe la am nekk borom xam-xam na nga moo ma ci dooleel nag après mu ne ma doon na ma wax ne ma Amadou. je respecte respecte beaucoup Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mais doo murit xam nga boobu affaire xëccante yi mi ngi am nangam nangam mais nag yàlla dimbale ma benn jour ma tëdd gént parce que comme ni ñu ma daan dàqee ak ni ma souffrir ci sama murit benn jour ma tëdd gént bi ma tëddee rek may gént comme mère bi ak paa bi noonu ñu ma sonale woon noonu di ma dàq di ma dàq may daw di ma dàq may daw di ma may daw ba ba ba ba laqatu ci ginnaaw Serigne Saliou man xay ga gi xay gi ñuy wax njoowaan gi ci xay man dama ko gis dama ko gént dama ko gis nii maanaam doog a dem gis ko mu xam ne man lii laa gisoon waaw après ma gis xay bi ma ma expliqué ko sama papa sama borom xam-xam la ma yow na ko ah papa man de damaa gént lii damaa gént daal ngeen may dàq kër moo jógee jëwriñ seex ba ngeen may dóor damaa gént ngeen may dàq may daw di daw di daw di daw rek ba laqatu ci ginnaaw Serigne Saliou mu ne ma à partir de aujourd'hui jox naa la ndigal mooy sa mooy sa wasila donc yow sëñ Saliou moo la woo relation bi continué foofu relation bi continué foofu ba ma dem ba euh, di di di di jëflante ak waa Touba Kinkayar général waaw may may jëflante ak ñoom waa Tekise quoi Balla Ndiaye mu koy nuyuwaale au passage boobu Mambay moo yoroon liggéey bi léegi nag Mambay bi mu yoree liggéey bi euh, mu yebaloon ma kër sëñ Cheikh Saliou pour ñu ko doon aménager ci wàllu meuble ak wàllu rido comprendre nga léegi ma dem fa maa ngi koy nuyuwaale maa ngi nuyuwaale Serigne Cheikh moom Saliou moom sëñ Saliou Mbacke di nuyu soxnaam su tedd si yaay Ndey Ndaw waaw foofu Daaru Xudoos pencum sëñ Soyebu kaw ba suuf man maa ko aménagé ci ci ci ndigalu ci ndigalu Mambay ci ndigalu Mambay loolu tamit gën maa accroché waat ak ak waa kër Serigne Saliou ak waa kër Serigne bi may sañ ci njurul moom euh, ci moom laa dem ne ko ah sëñ bi kat man damaa bëgg fu fi mu nekk nii sañ sama daara waaye njurul laa ko bëgg a waaw mun ne ma borom njurul dina ko teel boppam waaw loolu moo andi sama relation ak Serigne Saliou ñu sanc njurul sanc xelkom ñu ngi waajal nag njibingal benn sëwrum boo xam ne njibingal nañ ko war a tuddee daaru njibingal léegi loolu loolu foofu loo waaw foofu moom dañu dañu koy dañuy def globalité dañuy globalité dañuy globaliser tout ce qui est samoura couché maanaam tout ce qui est maanaam dañ koy kii parce que dañuy am problème espace quoi léegi liggéey problème espace la foofu am nañ fa espace bu mag boo xam ne ñu ngi koy réaliser bu sorti wee incha dañ fay dajale lépp lamp yi tax mu nekk daaru njibingal <laughs> alors en tout cas gis naa ne euh, Serigne Saliou Mbacké euh, moom moo la woo ci boppam euh, donc ginnaaw bi nga bëggee rek li nga xam ne mooy mouridisme bi que muy taalibe Cheikh taalibe Serigne Touba yëpp benn la parce que man taalibe Cheikh la du taalibee Baye Niass donc mi ngi noonu macha allah donc fu ñu leen woowee rek boo leen bëggee nit ki rek am na lu tax ngeen bëgg ko donc l'émission tire à sa fin Amadou Euh, Camara donc bëgguñu woon mu jeex parce que waxtaan bi neex na émission bi neexoon na donc bërëb bañ jugee tamit tàkala macha allah ba nga fa may nga may nga ma fa béy bu ndaw at xar <laughs> donc mi ngi noonu dañ lay daal di bàyyi nga wax sa dernier mot hmm. daal di tàggatu ak téléspectateurs yi lay seetaan waaw alhamdulilahi rabil alamin euh, di di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di leen sant yéen it di leen gërëm ah vraiment seen liggéey macha allah kay naa seen liggéey macha allah sa man bi ah seex ah vraiment macha allah macha allah macha allah liggéey bi jox ngeen ko àqam jox ngeen ko àqam terrain bi métti na naaj bi tàng na mais yëgalu leen ko sax seen seen yaram yëgalu leen ko seen yaram kon fi ngeen bëgg a yegg yàlla leen yàlla jàppale ngeen yegg fa bon ci barke Serigne Saliou Mbacké di nuyu ñëpp nag di nuyu waa Pikine di nuyu waa Pikine aw ma seen fay di nuyu waa diaspora bi parce que kay naa diaspora bi dañu may envoyé xaalis ma leen di liggéeyal te mosuñu maa gis am na ci ñoo xam ne sax dañ naan Amadou dugalal sa photo dugalal ñu xàmme la yàlla xam na ko mu nekk ay ay ay relation yu yu yu jege yoo xam ne dem na ba léegi famille la dañ lay booleeg diw ak diw ak diw ne la wool diw ku tabax ba pare ne la wool diw ku tabax ba pare ne wool diw yaa ngi dégg vraiment vraiment vraiment mention spéciale à maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Pikine di sant waa Pikine waa Pikine mag tali bu bees angle yëpp maa ngi leen di siyaar bu wér a wér di kontaan si ñoom di kontaan ci ñoom ndax ñoo ma doole man aw ma lu dul Pikine man Pikine laa am di sant dëkkandoo yi muy fii nii njurul muy xel kom yëpp di sant dëkkandoo yi parce que léeg-léeg matériels yi ñëw bagages yi di wàcc biir wi yi da ngay waaru maa ngi leen ciy jégalu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di gërëm nag euh, sama yaay ah waaw Ndeye Codou Ndiaye maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw di gërëm famille Camara bi yëpp yëpp yëpp yëpp su ma limee damay jóg di gërëm nag Khady Ndiaye ah design design nag nga Khady Ndiaye nag. waaw Khady Ndiaye daal maa ngi koy sant gu gërëm soxna. moom nga ubbee moom nga tëjee. waaw moom laa ubbee moom laa tëjee parce que nag bon ragal féete dafay xañ a wërsëg. waaw mag ñi damaa mos romb ci maire yi ñuy taasu naan ku def dégg ku deful doo dégg dara <laughs> noonu la <laughs> waaw gis nga. waaw moom dafa def moo tax day dégg waaw moom moo def moom moo def ku baax la maanaam ni muy seeyee système bi non ci yoon la ko teg ci yoon la ko teg Khady Ndiaye dija Newsnet dinaa la ko dinaa la ko présenté incha allahu rabbi kontaan na ah, Amadou lañ fi dalaloon donc mu nekk un jeune bi nga xam ne wax dëgg ci yàlla ku am jom la boo leen fekkee euh, cadre bi nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu jugee at euh, ci biir également euh, donc gis ngeen ne xam ne liggéeykat la donc di ko jaaj jaajëfal bu baax a baax c'est un plaisir Amadou euh, le fait que ñu dalal la neex nañu lool te xam naa dina neex téléspectateurs yi ñuy seetaan mais aussi dina neex waa Pikine yëpp bu loolu weesoo nag ma daal di remercier sama caméraman Cheikh Sadibou naaj bi tàng na trop gis nga ni ngay ñàkkee te moom moo ci naaj bi donc neena naa leen lu rafet ci émission bi rek moom moo ko daal di réaliser am li nga xam ne mooy jom moom tamit nangu liggéey filmé rek nga daal di kontaan mais kenn du góor a góor a aussi euh, ñoom ñaan ñëpp samay doom lañu euh, nekk monteur bi nga xam ne saa yu monté wee rek nga daal di bég euh, donc moom lépp lay jël plan bu ne mu daal di ko jël bu émission bi rafetee rek également moom moo ko dal di monte mais aussi du ma daal di fàtte tey ñaar ñi ma àndal muy Asia Cissé madame Diouf donc moo du Diouf également tey def ñu daal di gunge ci li nga xam ne mooy émission góorgóorlu mais Mohamed aussi sama doom moom it caméraman dafa daal di ñëw accompagner si émission góorgóorlu Euh, ni sénégalais yi euh, bëggee émission góorgóor di ko seetaan di ñu woo un peu partout dans le monde waa 7TV également noonu la ñu daal di bëggee rek li nga xam ne mooy émission góorgóorlu euh, donc di leen jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñuy safoo di ñu mbégoo donc ñoom it di ñu woo un peu partout dans le monde di ñu daal di jaajëfal mun ngeen ñu contacter sur le 78 480 25 25 boo leen bëggee rek ñu daal di leen tourner l'émission góorgóorlu di leen jaajëfal bu baax a baax et di leen jox dig daje ba beneen mercredi sur ce prenez soin de vous et journée à vous.